asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 23 septembre 2020 ñu ak yin yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey kay tey ki mu xëy séqal waxtaan Abdou Latif Ndiaye lañ koy wax moom nag conseil en communication la ci ministère bi nga xam ne moo yor sport réew mi di Matar Ba Abdou Latif Ndiaye nag la mu xëy di wax daal ne na bureau CNC bi daal dañ koy réinstallé waat maanaam daal dañ fiy tegaat beneen bureau boo xam ne la bokk dañ fi bi daal moo nekk nu fa mandat maaye nag jàpp na ne bureau boobu ñu fiy tegaat moom bu amee lii leer ba leer daal dina am ñoo xam ne danañu dem waaye dina am ñoo xam ne tamit dana danañu dugg si ci biir bureau boobu nga xam ne danañ ko fi tegaat maanaam danoy Alioune Sarr nag moom wax na ca ne nan tamit pour jël place Alioune Sarr moom ne na il faut nga daal mel ni moom ci wàllum xam-xam ci wàllum bëgg làmbam ak yu mel ni ki noonu loolu moom wax na ca ñëw na ci lu yaatoo yaatu tamit ci Matar Ba ak taxawaayam ak na mu mel yooyu yëpp ñëw na ci waaye li am ba des daal Abdou Latif moom fa mu waxee daal ne na li des ba des Matar Ba nag ay décision moo koy jël te buñ ca yeggee la mu war a def yëpp bu soobee yàlla dana ko def mu mel ni kon daal tey Abdou Latif Ndiaye waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatu seq na ko yëglikaay bi nga xam ne moom moo di làmb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi Abdoulatif njaay mu ngay wax ci lu jëm ci wàllum làmb ji ak mbër ya nga xam ne daal jàpp na ne ñii ay meilleur lutteur la ñu ci li nga xam ne nii mooy làmb ji ci wàllum technique ak parcours ya ñu def ñu ne ko kan kan la Abdoulatif Ndiaye nañu ko ci jëkk moom moo di ki nga xam ne moo di Yaxya Jóob Yékini Balla Gaye numéro 2 Modou Lo Ama Baldé ak Reug Reug jàpp na ne juróom ñi daal moom boo bëggee dégg dëgg moom ni ñoom ci wàllum làmb daal jàpp na ne lu jafee jafee jafe la Abdoulatif Ndiaye ñoo xëy tay séq waxtaan wu yaato yaatu ak yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb leen koo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci moom ak loo xam ne nii day mooy VIP bu ko njëkk am ci atum 2007 mooy Gris Bordeaux yëglikaay bi ne nañ day mooy premier VIP boo xam ne moo njëkk a tuuse kase boo xam ne kase téeméeri million la maanaam 100 millions Gris Bordeaux moo ko njëkk a fayeeku ci atum 2007 ca combat ba nga xam ne seqoon na ko ak Bombardier moo tax likaay bi ñëwaat na ci Gris Bordeaux ak palmarèsam ak jaar-jaaram onze victoire neuf défaites ak ñaari combat sans verdict daal lañu yëglikaay bi xamal ne loolu la Gris Bordeaux jot koo def ca la nga xam ne nii moo di carrière am keneen koo xam ne nii xëy na tey wax muy Père Max Mbargane moom nag mooy coordonnateur u Leewtoo Père Max nag moom jàpp na ne combat Tapha Tine ak Boy Niang ba ci ay wax xasee am am na nit ñoo xam ne solo nañ seen ay dal di jéem a yàq combat ba ngir nu ñuy dafa def ba combat ba du am daal ne def nañ ca la ñu mën ngir yàq ko waaye nag ñoom ñëpp xam nañ na ne daal am na ci loo xam ne ni jëru ko te itam réew mi xat na xataay goo xam ne ni looy def na baax moo gën a wóor permax mbargaan mu Leewtoo moo xëy tey wax lu mel ne ci yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey yëglekaay sunu làmb boobu buñ ci continuer ñëw ci écrit sap écrit sap nag moom donte seen i combat bëriwul waaye yëglekaay bi ne daal loo ci mën a dégg daal maanaam nañu déroulé daa mel ni baaxoon na trois victoire benn défaite jot a am yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw tey wax nu ko bu nu continuer ci écrit boobu ka nga xam ne nii moo di l'an 2000 di seen tête tête de file moom dafa gëj a bëre lool suñu làmb xëy ñëw wax nu ko ka nga xam ne moo di kal moom bu bëggee dëgg-dëgg moom itam daal mu ngay jox gaay yi rendez moom kal parce que itam bëriwul ci li nga xam ne ni mooy saison biy jeex booy waar Mamadi ak délégué moom ñoom jàpp nañ ne ñoo ñetti espoir yoo xam ne daal ñu ngi wane seen bopp bu baax a baax a baax ka nga xam ne nag moo leen tàggat di saaliw ba moom la mu xam ne daal nee na saison prochaine daal am nañ yaakaar ju toll ni daal danañ def lu gën a yaatoo yaatu li nga xam ne nii moom la ñu def loolu ko ko xëy wax tey moom moo di saaliw ba ci yëglekaay bi nga xam ne nii moo di sunu làmb ba tey bu ñu continuer ci yëglekaay bi di sunu làmb ak micro xam ne yëglekaay ba koo def ci li nga xam ne nii moo arène ba ak tur wa nga xam ne moom lañ ko war a jox juróomi nit yag ya nga xam ne xëy na leen andil ku ci nekk la nga wax kii nga xam ne nii nag moom mooy Birama Seck moom Birama daal la mu jàpp daal na ka moo di màngal do daal lañ war a tuddal xam ne moo di arène bi Alpha Diallo moom ka mu gis na ne du kenn ku dul ki nga xam ne moo di Fallaye Balde Ismaïla Badji moom Doudou Baka Sarr la jàpp ne moom la ñu a xam ne mooy arène ba ka xam ne nii nag mooy moom mooy Mbaye Fadja Dieng moom moom ka mu gis tamit ne na daal duubalees lañ ko war a tuddee Lamine Ning moom Fallaye Balde la jàpp jàpp ne moom la ñu war a tuddee la nga xam ne nii moom moo di arène ba loolu mooy li nga xam ne nii daal moom moo di la ñu yëglikaay bi wax waaye tamit yëglikaay bi ñëw seq ak waxtaan wala bokk nga xam ne moo di Mamadou Fall moom itam gis nañ ko muy wax ci séminaire boo xam ne daal ñu ngi koy waajal pour le 29 septembre ak li nga xam ne nii moom moo di daal activités yi nga xam ne yooyu sportif yi ñu war a reprendre la te ministre des sports fas ko yéene seq ak nag ñi nga xam ne nii ñoo ngi sport bi mel ni ki noonu yëglikaay moo xëy ñëw wax ko leneen loo xam ne nii buñ demee ca tuusi yëglikaay bi di ak Tafa Gueye de yëgle kaay baa ngi xamal ne daal combat ba Leewtoo production mu nga ca ngir bëgg koo taxawal ba daal ñu ngi koy dox yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw tey wax nu lu mel ni kii noonu keneen koo xam ne nii daal yëglikaay bi ñëw na ci moom muy boogaa bu faas yëglikaay bi di sunu làmb xëy wax nu ko dana xale la boo xam ne day talent la boo xam ne bu ñu war a chiffre la yëglikaay ba moo ko wax nee na daal boogaa moom nan ko bàyyi xel bu baax a baax a baax keneen koo xam ne nii daal wala beneen yëglikaay fa la nuy dem muy record Amadou Mbaye nag ma jiitalee amateur authentique daal lan fay fekk la mu xam ne daal nee na mbirum CNC wala boog texte yi nga xam ne ni moom la ñu war a defar nee daal war nañ ko force defar ko ba nga xam ne ni daal waajal nag jëm ci fédération loolu mooy gis-gisu Amadou mbay keneen koo xam ne ni yëglikaay bi ñëw na ca moom muy source poit ak ren nag li mu def ci lit simple bi maanaam six cent cinquante mille yi nga xam ne ni jot na koo gañe ak ñetti nag waaye jàpp na ne daal la ko gën a sonal daal maanaam blessure bi nga xam ne jàppoon na ko lu toll ci juróom-ñeenti weer moom George Poit ñëw na ca lu mel ni kii noonu jàpp na itam li nga xam ne daal trophée boo xam ne nii daal amoon na ko ci la nga xam ne nii moom mooy ouverture bi wala boog mu markel ko lool mbir moom nga xam ne nii gañe na ko loolu record tey moo xëy ñëw dinu ko wax yàgg asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internetu Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen bu baax a baax ak fu ngeen mën a nekk si àddina bi rek ñu ngi leen di bëgg di leen ñaanal jàmm waaw di ko sàkku si yéen waaw di wax ne que tey ñu ngi ci mercredi di di 23 septembre 2020 waaw yëglikaay yi tey dañuy ñëw rek ci jàngat comme ni liñ fi gis tey ci ala in yi bu fekkente ne sunu làmb la fa la ñu koy jëkkee moom la mu ñu xëy woon daal wala que mu xëy seqal waxtaan mooy Abdoulatif Ndiaye waaw moom nag conseil en com la ci ki nga xam ne nii moom mooy ministre des sports Matar Ba waaw conseil en communication la ci moom moom nag la mu xëy di wax daal maanaam CNC bi daal la jàpp ne danañ ko réinstallé waat maanaam dañ ko fi maanaam dañ ko fiy tegaat boog waaw néew na tamit ci nouveau mandat bi bëri na daal loo xam ne waxtaane na ko moom ki nga xam ne ni moom mooy Abdou Latif Ndiaye boobu ak tamit jàpp na ne même bu loolu dee am ak yooyu dina am ñu dem waaye koy wax na a mel ci qualité ak yooyu mel yooyu yëpp daal li ci am solo moom conseil en communication la di xelal Matar Ba ci wàllum communication ak ci doxalin loolu nag defe naa moom it bu xëyee wax waxam war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ba xamuñu nag ndax dañ fiy tegaat Alioune Sarr wala ndax dañuy uti keneen ku bees ak beneen équipe loolu lépp ñoom la waa ministère des sports la rawatina ka nekk sa bopp ba di Matar Ba mais lañ si daan wax lañ ci wax ba tey rek kii ñëw daal li ma xam mooy yal na doon kii gën ci waa làmb parce que tamit Alioune Sarr ak lu la waaye mën a wax na fi liggéey boo xam ne nii ah, am na lu bare bari loo xam ne daal jaar na ci yoon dafa fekk ne nag matale moo yombul wala olof naan daanu dajul suuf yaa ngi dégg kon ñaan nañ yàlla na ku fi ñëw def fi lu raw lim fi doon def moom Abdoulatif tamit ñëw na ci mbër yi mu jàpp ne ay c'est des meilleurs ci seen génération li ci liñ tolloon muy yax ya muy Balla Gaye muy Modou muy Reug Reug yaa ngi dégg ak Ama Baldé loolu da ba tey gis-gis la parce que tamit nit ku ne sa appréciation ak li nga gis ak parcours yi waaye xam naa mbër yi mu lim moom man du ma ne ñoo fi dàq bëre wala ñoo fi waaye xam naa daal bu ñuy lim fukki mbër yi dàq bëre moom ñooñu dinañ ci dugg wala ñuy jàpp ne ci la ñu man ci ci ñu man ci làmb mel ni kon loolu moo lay wan itam làmb ji ñëpp koy bàyyi xel bu nu continuer ba tey Gris Bordeaux yëglikaay bi ñëw na ci moom tey que ni mbër mi njëkk a touché wala moom VIP bi njëkk a cent 100 millions ci atum 2007 digganteem ak Bombardier ñu ni kon yëglekaay bi xay na loolu moom jàngat na ko gëstu ko ba indil ñu ko Gris Bordeaux nag yaakaar naa loolu li ko ko may bokk na ci encadrement bu baax li ko ko may bokk na ci man bëreem ak i tamit bëgg làmbam ak jox ko cëram parce que mbir soo ci nekkee jox ko cër am ñu la encadré defe naa ne lépp war nga ko mën a xaar mu ñëw ci jam kon defe naa loolu lu am am solo la ci Gris Bordeaux ñu koy nuyu di ñaan rek combat ak Balla Gaye numéro 2 yàlla na am digganteem ak Lirou Diane nag saf na sap xam naa ku dem Leewtoo TV da nga fa fekk seen vidéo ndax da ko bëggoon a ne ko daal waaw mooy loolu Lirou ne ko boo ma dóoree yaa ma gën a xam ñoom ñaar da ngay ree ba tas ba tey buñ continuer yëglikaay bi Max Mbargane ñu koy nuyu suñu père borom Lansar ah wala borom lamb ji sax mu xam le ne daal am na ñoo ñu doon def ay jéego yu ñu mën ngir yàq combat ak Balla Gaye te jàpp na ne ñoom ñëpp ci lamb ji lañ ne te jàpp na ne loolu jëru ko waaw loolu bu amee dama naan jëru ko waaw parce que li tax ma naan jëru ko mooy ñoo bokk réew mi l'autoproduction ay sénégalais ñoo ko moom wala ñoo ko sos di eh, dëkk fii ci réew mi dafa naa ne bu ñu bëggee combat wala ñu dox ko ba wax ko ba déclarer ko dafa naa ne keneen war a mën a jóg pour man di ko yàq loolu moom yaakaar naa ne kenn ku ne war nga ko mën a d'accord te du sax pour promoteur bu mu doon rek nga ne ci combat di ko dox ba siiwal ko. ba ñëpp jot ci wala sax boo koy dox pour man sa moroom promoteur bu ko yëgee la war gën a rafet mooy mu jàppale ci pour mu mën a taxaw ñaa ngi dégg soo demee nag ba dee tëggatuma ba génn ca su keroog nag ñoo xam ne yow yaa waxoon yaa waxeet yaa ca génn bu keroogee ku ne am na liberté liberté wu dem doxe ko mais encore une fois rek li ñuy wax mooy muy léewtoo wala muy structure yu mu ci mën a doon di tëgg làmb dañuy wax daal ñu nañu xam ne ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk Sénégal na lépp rafet te defe naa ne tëgg combat wala bañ ko tëgg waru leen mën a boole non non parce que ay sénégalais lañ ay doomu aadama lañ ay jullit lañu wala ay chrétien lañ ñoo bokk réew mi yaa ngi dégg kon na lépp di rafet daal Père Max di ko nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jam di nuyu bépp doomu aadama ak bépp kilifa waaw yëglikaay bi tamit ñëw na ci écrit zap bi Saliou Ba nekk seen entraîneur te l'an 2000 nekk fa tête de file ak seen trois victoire ak seen benn défaite mu mel ni kon combat ya bëriwul waaye tamit doonte bëriwul waaye am nañu ay victoire waaw yu bari parce que ñetti victoire lañ am benn defet mu mel ni ki nag écrit la boo xam ni am na ay xale yu fa ne euh, nañ nag ku mel ni Kool xaw na kii bëri bi mu daane Ousmane Gandigal ba tey bëriwaatul yaa ngi dégg ak am na fa ay xale yoo xam tamit ñu ngay wane seen bopp ah Zal ba nag moom mu leen di tàggat defe naa tey làmb am na lu bëri lu mu ci xam la mu waxi tamit nañ ci jàpp rek que ni saison prochaine ah yaa am nañ yaakaar ne daal dinañ def lu ëpp loo xam ne nii moom la ñu defoon waaw loolu nag mën na ne ça rek ci liggéey bi waaw waaw liggéey bi daal moom moo koy lépp lépp liggéey bi moo koy définir ba tey bu ñëwee nag dañuy dem record record lañ fay fekk mooy mbirum euh, maanaam CNC beeg jiit njiit ak loolu ki xëy tey di ca wax nag foofa ab nu Cheikh ak moom waxtaan mooy Amadou mbay moom mooy président des amateurs authentiques moom nag la mu xam ne daal maanaam refonte des textes la wax pour maanaam. jëm ci wàllum fédération maanaam defar ay texte xolaat ko jubbanti pour que ñu war a dem ñu war a mën a dem si fédération ëllëg waa dama naan loolu am na solo waaye la mu ci waxoon si fédération laa siy wax rek fédération moom à tout moment du lu ñu jàpp ma ne bokk lu ñu war a xëyee xëy rek ne dañ koy def fédération war nañ ko waajal comme ni ko Amadou Mbaye waxee defar ay texte lépp ñu jàngat ko yaa ngi dégg bañ ko yàkkamti ba mu tege ci aw yoon buñ cay dem ñu dem ca parce que li te ñu fexe lépp nekk njëriñu làmb loolu am solo euh, Sorsu Poit Sarr waaw moom mbërum simple la defe naa ne mbëri classe ak ñoom jiga gi ñoom Cédric Marcelin Ndour ñoom euh, Pape Pape Ndiaye ak ñoom Mas Ndiaye xam nañ kam mooy kan mooy Sorsu waaw Sorsu Poit xam nañ ko bu baax a baax muy xale boo xam ne ci li simple bi leen di wane boppam moom itam ren boo xoolee ah benn maanaam daal galaa yi nga xam ne nii li mu jot a gagné toll na ci 6 millions 650 000 francs ak ñetti nag la jot a gagné ren nag li ko gënoon sonal mooy blessure bi nga xam ne écarté terrain bi pendant neuf mois muy blessure boo xam ne daal xawoon na ko sonal waaye tamit na mu euh, débuté ouverture saison ñëw na ci tamit loolu lu ko marqué la muy xale bu ñaan rek blessure boobu yàlla na ko yàlla dikkaat ci compétition yi parce que mbër la moo xam ne ni xam nañ ko bu baax a baax xale bu am avenir u làmb la moom source poids boobu di nuyu ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm def ko ci àddina bi yëpp di nuyu suñu soppe yi fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di béggee di leen ziar di ñaanal jàmm di nuyu tamit koo xam ne suñu la suñu xarit muy Cheikh Ablaye Diop xaas di ko ñaanal jàmm di ko saako ci moom parce que ñu ngi dégg ah, sëy bu mu war a fas ci diggante mag sumbulu bàcc li ñu ñaan yàlla sëy boobu yàlla nañ ci dugg bismillah rahmaan rahim yàlla dafa leen ci njaboot gu am barke barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ay sëtaat ki sëtaat sax juddu ci yàlla mën na ko yàlla na ko def parce que moom it suñu nit la te ku ñu sopp la si Ablaye Diop parce que daf ñoo safoon lool lool ñu koy ziar bu baax a baax di nuyu tamit keneen koo xam ne ni suñu soppe la di suñu xarit di suñu lépp muy Serigne Cissé mu sëñ Babacar Sy maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom di nuyu ñëpp ñu nga xam ne daal ñu ngi ñuy sifri yàgg maar rawatina nag suma xarit di ko ñaanal jàmm borom Zik FM Lamine Seck Lit TV sama rakk sama xarit sama seex di ko ñaanal jàmm ak ki nga xam ne nii moom mooy l'international Youssou Ndoye di wane na nag dem présenté nañ ko ca Real Betis mu mel ni signé fa contrat bu bees fa su yéenee basket di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm yàgg di la nuyu di nuyu waa Liberté 4 di nuyu bépp internet boo xam ne daal yaa ngi ñuy suivre mais Ndongo Fall depuis Italie duma ko fàtte di ko ñaanal yokk barke yonent bi sallallahu alayhi